dama yaakaar ne rek population bi. lii la xaar ci ñun. population bi dañoo sonn ndax égoïsme politicien yi. dañoo sonn égocentrisme politicien yi. dañoo sonn si mensonge politicien yi. dañoo sonn ci fen parce que di yëkkati doomu dëkk bi ñuy xeex seen diggante comment pouvez-vous imaginer dans une ville comme Tambacounda. ñu euh, ngi comment naka ngeen mën a ima euh, xalaat ne dëkk bu tuuti bu mel ni Tambacounda ñu ne ay cent deux cent cinquante trois cent candidature loolu caaxaan la loolu caaxaan la moo tax dem mu foofu parce que population yi dafa am leneen lu ñu soxla te ñun population bi xam nañu ne dañoo toogoon waaye président Macky Sall programme ñu indi ñun euh, dañuy war a nekk résonance bu ñu ñëwee si dëkk bi dañu war a indi loo xam ne au moins bu ñu demee population bi nee na a ah, dinañ mën a téye si lii mais lii dafa rusloo en tout cas man euh, gisuma si sama bopp rus naa si san du grandir benn homme politique benn femme politique yaakaar naa ku war a doon député ku war doon ministre ku war a doon président yàlla bind na ko ba pare dañu war a amatul formation politique te loolu moo des dañuy gis soo xam ne mu xëcc loo xam ne moom xamul sax loolu lan la parce que titre la bëgg parce que léegi poste yi du titre titre lañ ko def titre man doon la lii titre la alors que fonction la dafa war a jëriñ askan bi ku nekk conseil municipal da nga war a xam lan mooy conseil municipal ku nekk député da nga war a xam lan mooy député keletu population bi def ko war a xam diw damay jël diw parce que mën na ko parce que xam na ko loolu moo loolu la ñu war a def mais léegi ku jóg bal leen ma terme golo gu jóg mu ne mu ne responsable la loolu war nañ ko bàyyi te waa Tamba il faut que ñu am seen fayda bopp foog ñu am seen fayda bopp tant que population bi amul seen fayda bopp xam ñi nga xam ne bëgg nañ dëkk bi bëgg nañ développer dëkk bi topp leen ñu mën a liggéey loolu mën nañ parce que lii dafa ñaaw rafetul loolu moo tax du ma fa nekk.